mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy internet ci Dakar Buzz ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun muy génn ak àdduna euh, Moussa Dioum tey jii ñu nekk fii ci parcelle fekk fi nag euh, kenn di xam ne diggante ak Moussa Dioum kenn ku ne xam ne ko muy Tafatine di frère am di xaritam ñu bokk dëkk bokk lépp euh, tey fekk ko fi ay kàddu seede kàddu ñaan rek ci ki nga xam ne mooy aji dem ci mais li ci dekkuwaat mooy ñaanal Moussa Dioum fa mu jëm ko fi mu jógee ci barke Seexul Xadim Tafa ñu ngi lay nuyu di la masaw di la jàlleen bokk bëggoon laal ak ay kàddu seede sa diggante ak aji dem ji mi Moussa Fadel Acha maa ngi lay nuyu yow tam di la ko jaal di ko jaal Sénégal yëpp di ko jaal waa Bawol di ko jaal waa Refan di ko jaal waa Parcelles di ko jaal aussi ñi ma àndat muy bay yi baylaat ay ñoom Boursine Prési ak Bada Dione ak Daouda Sarr ñoom Issa ay ñoom Giri Signor nga xam ne ñoo fi ànd tey boog ak ni tiswiik ñëpp ah, wax dëgg yàlla comme ni ko ñëpp yéege daal noonu laa ko yéegee Moussa daal bett nañu ñun ñëpp nañu maase doo ñaanalu ko yàlla yàlla yërëm ko daal wax dëgg yàlla barki wéeru koor gi sa diggante ak Moussa gis nañ ni euh, sa xarak la sa xarit la ngeen bokk ay dëkk lan nga dund ak Moussa loo xam ne tey des na sa bopp loo mënatul fàtte lu rafet loolu moom boo koy lim fii bu suba doo fa jóge quoi parce que moom lu rafet lekk la xam quoi wax dëgg yàlla jërbaat la suma suma quartier jërbaat la ci sama papa kon suma doomu bajan la quoi wax dëgg yàlla man moom mënuma dara dara lu dul di ko ñaanal daal wax dëgg yàlla franchement waaw li des na xëj na ay ñoom John Daouda Sarr ñoom précis dinañu sori daal mais man daal maa ngi ñaan daal wax dëgg yàlla parce que loolu rek la des ci àdduna waaw. noo yëgee génn àdduna gi. wax dëgg yàlla comme ñëpp a mbay gu gi moom ma ko informé bi ma ko waxee rek dama ko ne booy loolu mënul nekk xamatuma lan laay wax moom ma ne ko coupé par la suite après la xool internet bi affaire yi d quoi. koy ñaanal. waaw ajana ji a kaw rek. waaw ajana ji a kawe rek loolu lañu koy ñaanal daal wax dëgg yàlla. di ko jàll waare fan yëpp nag ak waa Bawol yëpp voilà mu ngi jërëjëf jërëjëf leen yooyu yow di la masaw di sa rakk sa jarbaat lay kàddu seede sa diggante ak Moussa. waaw di ko jaal ñëpp di leen ko jaal wax dëgg yàlla wax ji métti na trop ci ci ci ci ci sama côté parce que dafa nekk sama deret waaye Issa Ndour mi ko jur di raako Arona Ndour mi ma jur ñu doon ay doom bàyyi mu doona nit feetek man nekk sama rak ma yore ko lu yàgg di ko dencal xaalisam yaakaar naa daaw da mi doon sunu mag ñoo ko jëkk a organiser fii booba bëri woon na coow ngir nekk xale mais moom dafa nekkoon sunu rakk ba noppi déggal ma man mu feeteek man parce papaam doon nit ku baax koo xam ne ba ndakaaru di ndakaaru lépp jafe nit wu bawal ku ne dimbali na fa la fi ci lu ne boo gisee affaire bi métti loolu rek moo moo man moo may moo moo may métti parce que papaam dafa nekk nit ku baax te man ma amoon yéene Moussa papaam fekke léppam ku nekk parcelle gi xam nga ne ni Moussa nit ku baax la foo ko fekk rek kaaf nga koy gis ree foo aussi dem na ba ñu bëri comprendre nu ko parce que léegi li nga yor xol bu rafet boo xamante ne nii da ngay bëgg a ànd ak ñëpp day dem sax ba mën nañu laa dekkal feneen te man loolu yëpp euh, li tax ma comprendre ko damaa xam ñi mu bokkat xam fi mu bokk xam lañu xam waaw parce que ñun bawol la ñu dëkk ñu ngi dëkk Réfane Samel Ndour ma xam baayam Issa Khat Dione ak Mod Sada ak ñi bokk ak baayam ñëpp li ñu xam mooy bokkoo ak ànd te moom Moussa ci loolu la doon dox bëggoon naa ànd ak parcelle yëpp bëgg a ànd ak bawol yëpp te dafa géemoon ne képp ku muy ak moo la war a defal looloo taxoon sax maanaam daa dem ba loolu moo yàq carrière am parce que bu fekkoon ni daa concentré wu ci boppam rek fu ne mën na fa àgg mais dafa bëggoon a ànd ak nit ñi ñëpp bëgg a ànd ak pikin ànd ak bawol ànd ak parcelle parce que dafa yaru pikin yaru parcelle dëkk Réfane xam nga loolu dafa kii te bëggoon naa métal lépp daal papaam ak yaayam nekk nit ñu baax ñoo xamante ne nii xamuñu lu dul lu baax Moussa jum papaam ba nii xale la ko def da ko doon defal lépp man dama cee xam lu bëri parce que Baye Issa sama sama rakku papa la ñun daal ñu ngi koy ñaanal vraiment ca aljana ya gën a kawe di ñaanalit Baye Issa ak njaboot gi yàlla dimbali leen ba ñi fi nekk yàlla ubbi seen lépp mm-hmm. ba nu mën a seere li fi nekk yaakaar ji nu amoon ci mussa lépp yàlla defal leen ko tawféex parce que yàlla it wax dëgg yàlla mën na lu ne parce que lépp loo gis mbir mi mitti na waaye nag yàgg gi rek maa ngi koy mosawu Baye Issa ak maire Siga di leen ko jaale te xam ne wax dëgg yàlla lii it yàgg ko yàgg ko waral boo guddee fan ah mën nga fe suul doom mën ngaa suul ndey mën nga suul baay mais loolu yëpp gudd fan a ko waral mais bu fekkoon ni dañoo départoon mënoon nañoo gàtt fan boobu sax Moussa du judd mhm. foofu rek la ñuy xool pour xam ne vraiment àddina mooy demee noonu te lépp luy dox lu ne day am foo xam ne bu fa àggee taxaw mhm. waaw te it wax dëgg yàlla ñun ay julit lañu war na noo maana am ngem goo xamante ne nii war na lépp lu dal ci ñun rek ñu sante ko yàlla te sant yàlla gi mooy nga judd ci julit yaru ci julit juddu ci yenn famille yoo xamante ne nii xamuñu fo xamuñu caaxaan xamuñu dara li ñu xam mooy liggéey jaamu yàlla loolu jom loolu lañu leen xamal seen famille ba ca dëkk ba ak sunu famille bi fii vraiment daal ñu ngi ñu ngi jaale waa parcelle gépp di jaale waa bawol gépp di ko ñaanal yàlla xari ko àjjana jërëjëf. jëf moo la gën a marqué ci Moussa donte sa jarbaat la sa deret wax dëgg lil ma marqué ci Moussa bari na parce que Moussa fu mu ma gisee woon day mel ni duma màggam. bu dikkee del may door naa ma xam nga di kaf ak man ci yu bëri aussi lépp loo xam ne nii da koo xalaatoon war koo def rek del may woo ñu waxtaan ci man loolu moo ma moo ma gën kii ci moom daal mm-hmm. parce que am na yu bëri sax yoo xam ne dañu ko doon waxtaane mais du waxu fii mm-hmm. mais daal en tout cas vraiment sunu xol fees na daal mm-hmm. jërëjëf jërëjëf mbokk yi lii mooy liñ fi leen toppal fii ci parcelle muy génn àdduna Moussa Dioum Euh, ngeen dégg kàddu yi Tapha Tine wax euh, ak kàddu yi Bada Dione wax waxloo leen dana jafe waaye aji dem ji bu demee li muy soxla mooy ñaan ak kàddu seedeel parce que seede yooyu lu tax mu am solo mooy dañ koy boole ci téere jëfam te loolu dafam solo moo waral bu nit génne àdduna ñu koy topp laaj lu seede kenn ku ne lu mu xamal ci moom ci lu baax mu wax ko Moussa nag li mu wax démb rek eh, yaru na am nay teggin mosuma ko dégg mu wax lu ñaaw am ak ñëpp jàmm nag li Bada wax rek Moussa Dioum du wax lu ñaaw. du def lu ñaaw ah, bëgg am ak ñëpp jàmm suñu borom nag mooy dogal ah, nee woon na waxtu wii leen koy judd waxtu wii lay dem kenn du weesu sa bis ñu ngi ñaan daal suuf su bàq ya ga mu jëm yàlla na oyof ci kawam na ko yàlla xaare àjjana te dee di noflaayam ah, ma jëm ci mbay guy gi tam comme tam ñoom it duñ noonu ak Moussa kenn ku ne rek muy kàddu ñaan ak seede ndax tey bis la boo xam ne yaakaar naa ne ñaan dong leen mën def mbay yi gi ñu ngi lay masaw di la jaal sa frère sa xarit sa diggante ak waaw ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci bi ñu ngi yu ñëpp di nuyu sunu grand taxa sunu papa Bada Dione sunu papa Daouda Sarr ñu wax sax du yoon seen kanam mais wax nañ lépp parce que Moussa doonoon na grand boo xam ne ci ñun lu ñu xewle sama open press bu mujj bi rek waxu waxu mag ko waxu mag ko mais dama geesu rek gis ko. waaw merci bi ma geesoo gis ko xam nga rek lu rëy jóge na ci man bu njëkk ba waxoon naa ko mais bii waxuma ko te daa ñëw. ci laa ko gën a fonkee ippi mu may vocal di ma conseil di ma wax lu ne ci àdduna lu baax moo tax bi nu ko yëgee daal sunu xol fees na ñu ngi koy jaale senegal di ko jaale nag susuma nu dëkk muy reefan sunu waa dëkk waa reefan ñëpp ñu ngi leen koy jaale di ko jaale it waa parcelle li yi wax ci moom rek Moussa moom nit la koo xam ne ñëpp la seq doon jàmm bëggut kenn mer foo ko mas a gis kafre sama làmb ñëw na ba ci làmb ji conseil ma wax ak man dem waaw ma jàppoon ko nag mu am fu mu toll ci man. Mhm. billaahi ma am lu ma doon yëg sama diggante digganteeg moom muy cëru grand frère boo xam ne yaa ma gën a xam. Mhm. mais ñu ngi ñaan yàlla sunu borom mi nga xam ne daal moo man mhm. mu xare ko àjjana ya gën a kawe ak mboolem jullit ku mu fa fekk. ci barke Seydina Mohamed ci barke Alxuraan. amiin jërëjëf bokk yi kon lii mooy li ñu leen jël seen fii ci eh, wàcc wil géey wax naa ko léegi rek li des nag mooy ñi ngi xaar ñu jóge Touba dikk ah, ñu am seen réaction ñu ñaanal aji dem ci yàlla na dee du jërë ngeen jëf la yaay mbërgal la yaay mbërgal la yaay mbërgal la fooy fanaan mbërgal la yaay mbërgal la yaay mbërgal la yaay